lan nga ci Siteu. Siteu. waaw sama doom la. yaay papaam. sam nagam. nagam sama mag ñëpp a fi nekk bàyyi waaw. lamb ji foo seetaane. seetaane fii laa ko seetaane moo tax ma jóge jawwaar. ci biir kër gi. waaw. Euh, naka nga ko dundee tiitoon nga wala jaaxle. wala mosuma mosuma tiit. Siteu bu ci combat laa wax ba ne. mu di ma laaj noo gisee Siteu ma ne Siteu bëreegul te temps bi léegi mu ngi def 4 ans ma ne 5 ans Siteu bëreegul mayel ma ko bés yi ay fan si kanam rek ay semaine semaine loolu moo nekk yii nag yii moom mosuma combat Siteu du ma laat hmm. du ma laat mais bi arbitre sifflé mu yàgg lan nga doon xalaat noo non non xam naa fee ma nii hmm. Siteu man du ma bëre Siteu sama doom la uh-huh. ok fee bu mu jëlee xam naa Hmm. Siteu bu yaa bu gënee bëri mu bañ a gis mu bañ a gis gàllaaj mu nekk Siteu rek ak ay nitam. Hmm. nga la defal li nga xam Siteu moom Siteu la. Hmm. yàlla moo ko bind. mais ñu gis tey bi muy génn li ko topp ci gàllaaj ci mystique. loolu moom foog ma def ko foog ma def ko yéen a tax ma def ko people bi. ne Siteu rek rek rek ak boore nii bàyyi ko noonu mu dem. Siteu boore bul ko ko conseillé. gis nga yi ñu koy conseillé du ko du ci dégg dara. billaay mm. tallaay si te loo ko mun ta wax du dégg dara fu ma gis moom moom ak moo ko gis mm. si te defe naa mooy jur gore mooy jur gore mu jur bu ay papa saw yu mu doon tëj du ma tiit saa yi boo ko daanee xam ni action ko ko daanee nee du noonu mm. te su ngeen sëgaatee mu daan la si te yàlla moo ko wàccee pour gore lu mu jël nga ne lii tayer mu bàyyi tayer si te loo ko jox na ko asatuma li nga xam ne nag daf ko mérité bugg ko depuis xale si ta jàngul bëre fii ah. yéen a jàngatu bëre gars yi di di ay pul bu day maa ngi jaago bu nekk katu bëre si ta moo jur bëre hmm. si tibee lamba nu mu war a def da war a naaw naaw hmm. hmm. si ta moom non non non moom am nga spécial lu ma ne si no du ma la ko mën a wax sax man daal lu ma xam si si dara wax naa la ko. dinaa la fekk januar. incha allah gars yi bëri ñu journaliste yi bëri ñu ngay fekk foofu. waaw mm, mais mais mystique bi moom fi ngeen ko tegoon da ngeen a jàppoon ne Papa Sow faaw ngeen jëflanteeg moom ci wàllu baatin. Papa Sow Papa Sow ni ma ko gisee ak nu ma ko Papa Sow man waa Paas laa. Mm. Moustapha Guèye bale man maa ko yar Paas. xam nga lu ma la lamb foofu la jógee. soo ko ñëw jox ay Grand Dakar ay Pikine ay karab karab. écrit bi su la Papa Sow jógee fii. ku ma tas sama grand la may wax ñun ñoo nekk lii. papa sida bi papa la si moom supporté na ko ba sonn. jënd na ticket yu bari pour moom. di ko supporté. xam nga lamb ni mu tëddee nii. mais su dee ñëw ne nag comme xaajatul rek si da lay gis. si daa ngi noonu. si da du poobar nokos la. ndeysaan. daf lay damm supp la. jërëjëf papa. ok thank you.